ganu ko bés bi tey ji ñu war a dalal Serigne gay nekk président bu association des handicapés euh, diplômés euh, du Sénégal fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy jànkonteel sëriñ gay maa ngi lay nuyu. ñu lay fay di am mbégte ak contentement ci xel yow waxtaan. waaw Serigne Gueye nga njiite association nga jiite plutôt association de euh, des handicapés diplômés du Sénégal fan yi ñu gis ni euh, yéen a ngi amal ay yëngu euh, yëngal yëngu-yëngal yooyu lan moo ko waral exactement Serigne Gueye waaw Serigne Gueye Moreau yëngu-yëngal yooyu ñu ko waral dara dugul dama jiite benn kuréel bu ñuy wax association des handicapés diplômés du Sénégal mhm. maanaam ay ndaw ñu jàng ba am ay lijaasa te amuñu am xëy mhm. Euh, ñu war doon sàkku nag ci état du Sénégal comme dafa amoon euh, bataaxal yoo xam ne nii Abdoulaye Wade daf ko fi signé woon bàyyi ko fi ñu koy wax ay décret d' application loi d'orientation sociale ñu waroon ko ñu signé décret d' application yi mais président Macky Sall ba léegi may wax yow nii signé wul décret d' application yi. Mm-hmm. te te loi boobu rek moo mën a ñoŋal nekkinu waylaago bi fii ci au Sénégal. parce que boo xoolee handicapé bi ci wàllu njàngam euh, da ciy sonn pour mën a jàng. te bu jàngee ba pare aussi pour mu liggéey problème la. Mm. Euh, dem bi ak dikk bi aussi dafa def ci am ay gàllankoor yu bari da nga gis handicapé boo xam ne dina yor puus puusam toog ci arrêt bi dafa def quatre heures de temps bëgg a dem du mën a dem nga ñëw aussi ci passerelle yi kenn sóoraale wuñu ci mm-hmm. nga ñëw ci aussi suñu wàllu wér gi wàllu wér gi yaram parce que ñun dañu am ay aide technique yu ñuy soxla ak ay appareil orthopédique yooyu yee njëg dafa cher ba jéggi dayo tey bu ñu daggee sa tànk yàlla tere boo amul un million cinq cent mënoo am tànk ki nga xamante ni bu añee du reer bu reeree bu xëyee du ndékki fan lay jëlee un million cinq cent yu njëkk jëmi jënde tànk hmm. euh, recrutement dans la fonction publique maanaam ñu ne téeméer boo jël euh, dañ cee jël fukk ak juróom jagleel ko way laago bi mais quota boobu noonu dañ ko jël jox ko ñeneen ñoo xamante ni seen i jarbaat la ak seen ne moom moo ko moom hmm. depuis deux mille vingt président woon na ndigal le ministre de la fonction publique madame Mariama mais dañu gis ne defu ci woon dara ba taxoon ñu doon wàcc doon ñaxtu actuel euh, ministre de la fonction publique bi ñuy wax Gallo Ba biñ ko nommé ba mu ba mu def euh, biñ ko takkalee ndombal tànk ba mu def weer ñu seet nañ ko ci benn bataaxal pour bëgg toog ak moom pour wax ko ne ko kat quota bii lañ bëgg ngeen respecté ko parce que sa naataango bi fi nekkoon nangu nangu ko doon respecté loolu moo taxoon ñoon génn pour fàkkoon ci moom mu dem mm-hmm. mais ba léegi fi may waxee yow tontuwuñu dëgg la mais mbir mi nag dañoo jàpp ne rek euh, manque de volonté politique la. Serigne euh, Gueye ñu gis ni à chaque fois bu ngeen wàccee ci terrain bi di amal ay manifestation takku der yi dañuy dal seen kaw euh, loolu lan nga ñu ci mën a wax. waaw sunu nay moro loolu moom dañ koy dañ koy naqarlu. Mhm. dañ koy dañ koy naqarlu bu baax a baax a baax a baax. parce que bu fekkee ne jàmmaarloo ak ñoom xeex mooy tax. ñu am li ñu bëgg yaakaar naa kon du ñu ko am parce que bu ñu taal pënë ñu mënuñu sànnanteeg ñoom xeer donc kon trouble à l'ordre public boobu ñuy wax mënut ta nekk. Mhm. Euh, à chaque gis nañ nag suñu wàcc bi mujj bi euh, te ñun à chaque fois que ñuy wàcc dañ koy jaar ci yoon. Mhm. bind nañ la préfet de Dakar bataaxal pour def def suñu doxu ñaxtu comme ni ko ñëpp di defee. Mhm. Euh, mais ñoom dañ ko nee nañ dañ koy interdire mais xanaa booy interdire manifestation di nga notifier nit ki ne ko yow sa manifestation bii kat kilifa gi daf ko aaye. mais defuñu ko ba ci jour bi bi ñu ñëwee war a amal suñu dox ñaxtu ñu gis fa ay agent de police ay policiers ñëw bi ñëwee nañu euh, manifestation bi dañ ko interdire ma ne leen waaw dañ ko interdire ñu ne ma waaw ma leen man leen ma këyit gi firndeel ne dañ ko interdire. Mm-hmm. amuñu lenn luñ teg ci suma loxo. ma ne leen kon nag ñun dañuy continuer def suñu ay manifestation ci la ñu woo seen commissaire commissaire bi ñëw avant commissaire bi di ñëw ñu jàppante ak ak handicapé di leen mm-hmm. pousse ba daana ci kenn. Mm-hmm. donc mu nekk lu ñaaw lu ñuy naqarlu. mais dañoo jàpp ne loolu lépp rek le ministre de l' intérieur monsieur Antoine Félix Diome suñu grand moo nekk ci ginnaaw ñu koy wax nag na bàyyi loolu parce que du du loolu loolu du ci am ndam amul benn réew ci Sénégal bu desal boo xam ne nii desal na way laa ko ginnaaw am ndam wala mu avancé amul. dëgg amul benn kilifa boo si nii mi ngi xañ ak ak yelleef handicapé bi di am ndam te te soxna Ndeye Moreau dinaa la wax leen de. tant que handicapé yi ñu ngi souffrir au Sénégal jàmm du am au Sénégal dëgg la mais fan tant que handicapé yi ñu ngi jàmm du fi am. mais fan yii Serigne ñu ngi wax ni yow njiitu réew mi daf la dalal pale jox la xaalis est-ce que mën nga indi ay leexal ci audience boobu lay nga xam ni ñu ngi laam-laamee ni am na wala amul. waaw loolu euh, ay nit mal intentionné ñoo koy ñoo koy wax. xaw ma ci ñoom la jógee xaw ma feneen la jógee waaye ñi ngi wër di wax ne man dañ ma recevoir palais jox ma trente millions. Mhm. Euh, may wax ne euh, loole de wallahi azim dara amu ci peut-être ñoom dañ ko def pour yàq dañ ko def pour diviser ñu waaye nekkul li nga xamante ni euh, moom mooy régler problème bi problème bi li koy régler mooy ñoom nañu nañu nañu nañu nañu respecté président Macky Sall signé defee d'application yi nga xamante ni ndax waral mooy tax ñekkin way ko bi gën a ñoŋ Hmm. loolu mooy régler problème bi mais pas di jël ay kii def ay contre communication yooyu du loolu moom mooy régler problème bi. Hmm. Euh, euh, programme ma jënd parce que jaayuma. Hmm. kon daal loolu amul kenn recevoiru la kenn joxu la xaalis. loolu amul. mais bëgg ngeen tamit njiitu réew mi dalal leen aussi. waaw njiitu réew mi bindoon nañ ko bataaxal depuis deux mille vingt pour toog ak moom euh, waxtaan ak moom ci lu jëm ci mbirum handicapé handicapé yi mais ba fii may moom sax tontu woon nañu ci benn lettre. joxe ay instructions pour que ñu régler euh, définitivement le problème des des des handicapés diplômés. Mhm. mais fii may waxee yow nii euh, amaatul dara dara dara lu ci lu ci lu ci am. Mhm. am ñu jël nag ay handicapés yu bokk ci ci ñoom. waaw di leen euh, di leen jox ay crédit ñuy woo ñu ay membres di leen dikk ay tukkeek ak yeneen ak yeneen. te loolu du jàll nañu bàyyi loolu nañu bàyyi loolu loolu du jàll. d' accord am na benn programme yaa ngi koy dégg di euh, xëyu ndaw yi euh, mu nekk projet bu njiitu réew Sénégal boo xam ni war na recruter ay jeunes yu bari bari même ci projet BRT bi est ce que yéen euh, projet bi gis ngeen si seen bopp naka ngeen ko gisee. waaw xam nga xëyu ndaw ñi moom bi ko président Macky Sall di lancé à Diamniadio man j'ai été invité maa nga fa woon mais ba léegi ba fii may waxee yow Mhm. ñun les personnes en situation de handicap surtout les handicapés diplômés yi gisuñu ci suñu bopp du recrutement du financement du accompagnement d' accord est ce que yéen tamit Serigne Gueye jéem jéem ngeen jël seeni i dossier yóbbu ko euh, DER wala ANPEJ nga xamante ni mooy kuréel yi fi état wu Sénégal teg euh, pour euh, financer ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat est ce que yéen jéem ngeen a dem si kuréel yoolu yooyu yóbbu fa seen dossier comme DER ak ANPEJ waaw xam nga ñun dañoo nekk ay citoyens sénégalais loolu avant ñuy wàcc wala ñuy def doxu doxu ñaxtu dañ koo def mm. fii may waxee yow suñu ay dossiers ñi ngi nelaw DER ñi ngi nelaw ANPS. parce mhm. que dañoo jàpp ne ay citoyens sénégalais lañ comme ñëpp. mais ba fii may waxee yow amul benn membre de l' association des handicapés diplômés du Sénégal boo xam ne nii euh, demandé na financement jox ko. Mhm. wala mu demandé recrutement ñu ñu ñu ñu ko dugal amul. amul kenn koo xam ne bokk na ci association bi bénéficier wu ci fonds wu. Euh, euh, DER wala ANPEJ. ba fii may waxee yow. amul mhm. benn membre boo xam ne nii sa dossier mi ngi fa. te te te ñu ñu wala financé la wala ñu wala wut fu ñu dugal amul te pourtant suñu dossier ñu ngi fa. Mhm. Euh, politique sociale bi njiitu réew mi teg dañuy dégg ay carte d'égalité des chances ñu koy jox euh, personnes handicapées yi est-ce que yéen am ngeen si carte yooyu ak carte yooyu est-ce que am na lum leen di jëriñ sëriñ. waaw xam nga euh, carte d'égalité yi dafa bokk ci loi bi ma loon limal ci la bokk. Mhm. mais carte yi liñ ci wax lépp bu fekkoon ñu ngi koy appliquer baax na. mais quartier yi soxna lay mm-hmm. euh, nee nañu vingt mille personnes ñoo ko am mais imagine toi ñaata handicapé ñoo nekk au Sénégal mm-hmm. ñu ne vingt mille ñoo ko am ba pare ci biir vingt mille yooyu ñu ko am ci biir vingt ci safra soixante dix mille lañu wax ñoo am carte yi mais ci soixante dix mille yooyu noonu carte mm-hmm. d'égalité yi mais ci biir soixante dix mille yooyu am na ci ñoo xam ne ni seen carte jëriñu leen dara carte bi tey tey tey boo feebaroon yàlla tey tey dem hôpital mënoo ci faju tey boo doon def sa inscription à l'université boo fayul doo bi tey boo waroon a boo boo waroon a am appareil orthopédique wala nga yor pousse-pousse wala dara bëgg bëgg utiliser carte bi mënuloo ko kon donc carte bi eh, njariñam bariwul du ma ne sax baaxul mais njariñam bariwul. Hmm. parce que mënoo ci am sax paracétamol. d'accord. et pourtant pourtant hmm. bu ñu ko appliqué woon day baax mais appliqué wuñu ko. Mm. kon daal projet yi yëpp ñu ñu teg ngir euh, jàppale ndaw yi am xëy yéen daal dañ leen see euh, seppi ba mu set carrément su ma déggee sa wax sëriñ dañu cee dañu cee dañu cee seppi wala boog bu ñu ci seppi lu ci itam euh, xaw nañu xaw nañu cee xaw nañu cee eh, beddi daal mm-hmm. parce que même bourse sociale yi nga gis nii yow imagine toi Soxna Ndeye Moreau en tant que président de la République ma Macky Sall mm-hmm. mu nekk un président boo xam ne ndaw la yow nga ne handicapé bi jàng ba pare nga ne ko noo toogal ñetti weer yu nekk dinaa la jox vingt cinq mille franc est-ce que mm. loolu rafet na mm. loolu pour man sax sax sax taaga la du respect yow ñetti weer ñetti weer soxna day maroo mm-hmm. nga ne Serigne Gueye léegi ñetti weer yow toogal dinaa la jox euh, ñetti weer bi ma jox la vingt cinq mille franc mais Serigne Gueye xanaa war war a takk jabar Serigne Gueye xanaa war warul am kër xanaa warut a bokk ci liy doxal réew mi mais loolu nit nit bu baax dina dina doxee Mhm. Euh, tey jii kon naka ngeen fas yéene def lan mooy seen euh, prochain plan euh, d'action pour nguur gi mën leen gersu taxaw si seen i jafe-jafe handicapé diplômé yi incha allah bii di ñëw incha allah am nañ am ñëw mhm. buñ ci jubee itam après julli bi parce que fii julli bi dafa xat ba bu ñu koy def manifestation di sonal askan wi nga xamante ni ñu ngi waajal korité Mm-hmm. loolu moo tax ñu ne léegi nañu nañu xaar ba ñu ba ñu corté ba pare mais incha allah ci kattanu suñu borom dañuy xalal di wàcc ci tali bi comme ko yoon waxee tant que suñuy problème saafarawul parce que nag euh, ay citoyen sénégalais lañ mm. da ngeen def sitting da ngeen def marche wala da ngeen di dem euh, buntu pale de la république comme ça njiitu réew mi xam ni yéen a nga fa. Mm-hmm. waaw moom moom incha allah ñett yooyu nga lim yëpp ba ñu sax ba eggaat ci def grève d la incha allah ci kattan suñu borom. Hmm. parce que euh, euh, lan lenn rek moom mën a saafara suñuy problème suñuy jàngoro pour handicapé yëpp mooy ñu appliquer ñu appliquer la loi d' orientation sociale à la lettre. parce que loolu rek moo mën a régler jafe-jafe yu yi du la neen. Hmm. ngeen tamit da di porter plainte état wu état wu Sénégal euh, fan ngeen di porter plainte état wu Sénégal ak plainte boobu lan moo ko waral. waaw xam nga loi bu xasee buñ ko xasee voté rek. Euh, day nekk loo xam ne lu dugg lay doon ba pare état du Sénégal dafa signé ay convention internationale ratifié ko ci lu jëm ci wàllum handicapé yi. Mhm. donc dafa am obligation respecté ko. donc loolu bu amul am na ñu sañ-sañu dem cour suprême pour porter plainte foofu état du Sénégal su ko defee bu ñu porter plainte léegi recrutement yi nga xam ne amoon na. ñi euh, nga xam ne amoon na. Mhm. après bu ñu signé décret bi. donc recrutement yooyu yëpp dans la fonction publique war a annuler. Mhm. xam ne loolu la loolu la yoon wax. droit yi nga xamante ne nag aussi daf koo signé daf koo signé ay convention internationale la tam su boobaa yoon da ko ciy teg ay ay ay daan. d'accord parce que euh, convention boo ko signé ratifié ko da nga am obligation respecté ko. d'accord Serigne Gueye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. soxna Ndeye Moreau man maa la war a remercier eh, ci occasion bi ñu jox pour ñu mën a exprimer wax ak askan wi suñu ay jafe-jafe et eh, jërëjëf. voilà merci beaucoup Serigne Gueye ñu koy remercier bu baax a baax moom mooy euh, président bu association des handicapés diplômés du Sénégal. diplômés du Sénégal.